gannaaw sortie bi nga xam ne Mollah Morgun sorti na ko di waxti ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko ne dafa yor ay vidéo yoo xam ne gis na ko ak ay vidéo président Sonko moom war gën kii di Salih Top nag génn na di ko répondre di wax que ne kii di war gën maanaam xam na ko bu baax a baax waaye li mu wax yépp dara dara amu si mu ne Mollah morgan musul gisee ak kii di président Ousmane Sonko musul déggante ak kii di président Ousmane Sonko lii muy wax yépp dara dara dara nekku di wax que ne kii di Mollah Morgun sax est ce que encaissé wul deux millions 250 millions Mollah morgan est ce que encaissé wu ko di wax ki di Mollah Morgun maanaam hôtel bi nga xam fa la di ko kan moko koy fayal ñan ñoo koy fayal ndax est ce que gisante wul tamit ñen ci ñi nga xam ñoo di wa APR yi mula Morgan Morgun kan di Top mo wax lu ngi mel gis si Twitter tamit ki di président Macky Sall mu mel ni ak accueillir ki nga xam ne moo di Mollah Morgan di ko tatagal si maanaam démission bi nga xam ne démissionné na ko si patriot bi daal di koy wuyu si moom moo Macky Sall clip gis nañ ko si Facebook bi nit ñi di ko partager nga xam ne moo di sa TikTok nag ma ngay wéy di wax que ne nañu focus si li nga xam ne moo di 2024 bi te bañ a bàyyi xel kàddu yi ki nga xam ne moo di kàddu yi Mollah Morgan yi lay te topp di président Ousmane Sonko di déglu ay discours am di ko topp bu baax a baax a baax lu ni mel nag ba léegi na ngi gis gars yi di publier livre bi nga xam ne moo di Cheikh Yérim na ko biir livre bi nag ma siy wax ne Mollah Morgun la gis ci patriote yi maanaam ko koo xam ne daal dafay wax dëgg yàggul dara ñu gis fuite bi am si ki nga xam ne moo di Mollah Morgun mel ni daal mbir yi baara yëgoo la mel ni mel na daal dañ ko yëgoo daal nekk mbir mu doy waar lool lool lool sax si kaawa ki nga xam ne moo di Mollah Morgun yoote nag euh, mayuñu ko dara ñu ngi dal si kawam dal yu métti métti métti donte nag ay jamono si weesu ma ngi doon défendre kii président Ousmane Sonko waaye fii mu génn nag dafa mel ni